gën nit ñi doon xalaat. amu ci violence ak yooyu yëpp dara amu ci. Mhm. làmb ji def nañ ko ba mu jeex ci bii làmb ji tasee tamit dégguma benn dégât boo xam ne am na ci. Mhm. kon normalement làmb ji moom wax dëgg yàlla làmb ju neex la. Mhm. concernant bëri bi aussi bëri bi tegu na ci yoon euh, ñaari mbër yi dépensé nañu énergie bu doy. am na spectacle am na lépp. problème bi daal mooy ci problème mu chute la ñuy wax. problème mu chute yi aussi. Mhm. ah règlement bi dafay wax ni. Mhm. su fekkee ni da nga benn action ci biir géew bi. Mhm. mu terminé ci biti. yow mi nga xam ne yaa yow yaa def action bi. Ah loolu dañ lay accordé dañ lay accordé jël. mooy li Modou Lo def yow mi ne ci biti munoo daan ci ne ci biir. Ah. d'accord. comprendre nga li ma loolu léegi moom moo bu defee Siteu bu defee recours tamit mënul am ndam ci kaw Modou bu ñu déggee li nga bëgg a expliquer. non man loolu loolu mun ma ko wax loolu décision CNG la. d'accord. mais ci concernant les textes laa wax. Mhm. Mhm. su fekkee ni par exemple yow mi ne ci biti munoo daan ki nekk ci biir. Mhm. loolu la règlement bi wax. waaw léegi nag décision yi moom CNG moo koy jël. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk am nga droit def recours. Hmm. ki nga xam ni moom mooy Siteu am na droit def recours. le hmm. CNG bureau bi bu demee siège toog commission euh, règlement ak pénalité gis ni que li arbitre yi wax ak li nga xam ni moo am du benn mais dañ koy cassé. Hmm. du comprendre nga li ma wax. parce que moom am na droit bind recours parce que ñoom seen seen euh, VAR bi dañ koy testé. Mm-hmm. comme dañ koy testé am na ay décision yoo xam ni décision finale yi toujours CNG moom moo koy mën a joxe. Mm-hmm. mais li nga xam ne nekk na. Mm-hmm. mooy dama man lii ma wax nii ci règlement bi la nekk ba am na benn mbër bu ñuy wax euh, Siteu bu anti euh, astafurlaa. Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor waaw. comme na fi temps yële passé mais bi daanee nit ki. moom bébé bis ci ginnaaw saako yi. Mm-hmm. Mm-hmm. alors dañoo dañoo bañoon dañoo bañoon. Euh, chute bi victoire boobu. chute bi. Mm-hmm. lo waaw dañoo bañoon chute ba. Uh-huh. kon tamit su fekkee ne loolu la ñu reprendre encore kon euh, li chute chute bi nga xam ne moom la Siteu di réclamer. ci biti. duñ ko homologué loolu laa jàpp. mais nag man sama wax mënul dëgër parce que euh, comme comité règlement ak pénalité. Mhm. foofu ngay déposer sa recours ñoom ñooy àtte ba xam ndax li nga xam ni dañuy maintenir la décision des arbitres wala dañ koy casser. Mhm. waaw. alors rapidement père Max dugg na fi sànq léegi mu wax lu liyee maanaam li nga wax ni léegi moom nee na loolu mosu ko gis mhm. nit bu nga xamante ne nii mu ngi ci biti mën na daan ki ci biir père Max Mbergane nee na loolu yow c'est la première fois mu dégg ko et que Siteu mës na ko daanee mbër Zarko voilà loolu lay expliqué xam nga man man sama xalaat laay wax moom xalaatam lay wax. Hmm. Uh-huh. nee naa la Siteu bu Ngor. waaw ak bébé bismi daan na fi nit. moog bébé bismi noonu. mais nanguwuñu nanguwuñu euh, chute ba kon man damay wax li nga xam ne loolu laa xalaat Max moom am na lu muy xalaat na ko wax. d'accord su recours tamit Max am na droit bind recours su bind recours xam nga du ko jox. Mm-hmm. Mm-hmm. CNG lay recours bi. CNG mhm. ñooy àtte. Mhm. mais man li ma li ma laaj. te ma te te li ma mënuma wax lu dul li nga xam ne loolu la règlement bi wax. ci ay texte. Mhm. léegi ay daan wax ni. ki nga xam ni moo nekk ci biti mënul daan ki nekk ci biir. d'accord. bañ nañ ko ba saako yi sax dafa am nuñ ko tegee. waaw ah, waay dañoo teg ñaari saako. am na koo xam ne boo fa tolloo làmb amatul dañ leen di indiwaat dugal leen ci biir enceinte bi. Mm-hmm. mais ki nga xam ne nag dafay ñëw di bëree ci biir. Mm-hmm. porté mouvement ñu génne génne la daane la ci biti. Mm-hmm. dañ koy homologué parce que action bi ci biir la commencé. dëgg la. d' accord. d' accord léegi. Ah. ñoom ñoom ñi nga xamante ñoom ñooy maanaam. allo euh, kii waaw mën naa jëmbëri. voilà nee na yéen ñi nga xam ne yéenay manager mbër yi te bu ngeen demee ba tey ji ngeen war a comprendre texte yi euh, il paraît que moom dégg-déggam euh, ak paa bi dafa burxaan mhm. waaw est-ce que yéen ñi war a manager mbër yi tey daf ma ne ce que yéen ñi war a manager mbër yi waaw tey daf ci am ay manager yoo xamante ne nii maanaam li nga xamante ni moom la texte yi wax pour ñu jottali ko seen ay mbër sax c'est tout à fait un problème est nekkul lii mooy indi yenn problème yi nga ne nga ne yéen ñuy manager mbër waaw ma ne yéen manager yi. yéen ñi nga xam ne yéenay manager mbër yi. waaw est-ce que tey texte yi nga xamante ni moom moo nekk ci règlement bi. waaw est-ce que maanaam seen ay mbër ñu ngi koy jot ni mu waree. ah mais xam nga man mënuma xam lépp. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. mais xam naa ne boo nekkee manager. Mhm. war ngaa jéem a xam ci réglementation bi dara. mais nag tey jii même yéen fi ngeen di liggéeyee noonu am na bi ñoo xam ni. Mhm. mën nañ la ne waaye animateur wala journaliste mais est-ce que ñu ngi def pleinement seen seen rôle. Hmm. loolu de foo dem rek am na ñoo xam ne ñu ngi koy def normalement ak ñoo xam ne duñ koy def normalement. Hmm. Mhm. de toute façon mais mbër mi aussi. Hmm. le lutteur ne doit pas être dupe ba nga xam ni yow waroo jéem a xam dara. Mhm. boo toogee war ngaa mën jël le règlement toog am sa xarit boo xam ne sax jàng na mu lay mu lay mu lay tekkil. dëgg la. parce que loo nekk ba di mën a fayeeku cent million wala ay quatre-vingt-dix millions. Mhm, te maîtriser war nga cee mën a jéem a xam dara. Mhm. ok dafa bari nag loo xam ne man manager rek la ñuy wax manager manager. Mhm. mais yow boo boo boo nekkee leneen sax même mécaniciens yi dañuy dem di documenté wu pour xam oto yu bees yi nan nañ ko war a defar. kon mbër yi aussi. war nañu ñoom tam de temps en temps di jéem a xam ci réglementation bi. parce que ñu bari nee nañ euh, manager yi ci leen ñor ci allo. ma ne ñu ci bari nee nañ manager yu bari seen ay dix pour cent rek kese moom moo leen ñor ci li nga xamante ne moom mooy mbër bi tey kaddu yooyu. tey ah, tey kaddu yooyu tey boo koy dégg en tant que manager président bi. Euh, maanaam président des managers nan lay def ci yow. loo loolu moom kooku yàq la xam nga manager yi. Mm-hmm. depuis euh, quatre-vingt-quatorze ak léegi ñu ngi fi di liggéey ak le CNG. Mm-hmm. Mm-hmm. te kenn déggul xaalis bu ñu luubal wala xaalis boo xam ne teguñ ko teguñ ko coon wala làmb joo xam ni dañ naan la manager bi moo ko yàq. Mm-hmm. kon nag bu ñu nee dix pour cent rek. Mm-hmm. kenn ku nekk li ngay liggéey di nga ko di maanaam di nga ci xalaat au moins. Mm-hmm. liggéey liggéey war ngaa xalaat ni nga koy amee war ngaa xalaat aussi àq yi ci nekk yëpp. ay risques yu dul jeex moo nekk ci management du di pour cent rek de. waaw mm, am man man mii dal na ma ma nekk manager. Mm-hmm. sama mbër am problème ak mbër. Mm-hmm. ñu yóbbu ma ma umee corps ma ma corps gendarmerie. Mm-hmm. waaw est-ce que kon foofu dix pour cent rek la. bu amee ay risques. waaw dafa am ay risques nag vraiment. waaw am na ay risques yu dul jeex. waaw léegi nag bu ñu nee dix pour cent kese la. te dix pour cent yi mën la yóbbu kaso dix pour cent yi mun la rembourser loo. waaw kon dix pour cent yi dara la. <laughs> ah. kon dix pour cent yi dara la kon. ah mais dix pour cent yooyu li muy te te ñi presque sax ñi koy encaissé di bareetul. dëgg la parce que il faut mu am esprit de solidarité. Mhm. boo xam ne dafa war a nekk entre les lutteurs ak leur manager. dëgg la am na ci ñoo xam ne lu ne la ñuy mag Siteu euh, moomu amul lu mu yéenewul Max Mbargane. wallaay dëgg la. yaa ngi dégg. Mhm. mais am na ci ñoo xam ne ñoom tamit yéenewuñu seen mbët dara. Mhm. dëgg la kon lu dix pour cent kese. Mm-hmm. man bërki Demba Ndiaye. baa ma ñoon junior. waay waay waa waaw. amul ñu ma deful ci biir enceinte bi foofu alkaati yeeg yëpp. Mm-hmm. à mon âge. dëgg la biñ koy gaañ. kon du dix pour cent kese. Mm-hmm. man am naa mbër yoo xam ni dañuy bëree simple simple ma dem assister yi leen ci seen ci seen làmb yooyu. am na promoteur yoo xam ne ñu ngi may dégg mën nañ mën mën nañ mën nañ ma mën nañ mën nañ mën nañ wax loolu. mën mhm. nañ ko seede mhm. kon man lu ay dix pour cent am na mbër yoo xam ne du ma lekk sax seen pourcentage mhm. waaw jërëjëf Père ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax baax na jërëjëf jërëjëf Père euh, Bourkhane moom itam dégg nañ ko quand intervention bi nga xam ne def na ko ci euh, victoire Modou Lo ak ni mu waxee quand <laughs> ni ñu ko doon waxtaanee fii léegi ku ne ci biti mënul daan ki ci biir même su fekkee Père Max ne moom dafay def recours am donc ah, ñi ngi xaar lan mm. mooy nekk résultat euh, final bi. Mm. Lamine moo nekkoon ci sama ndijoor ma ndoon ci ak Diaw Fara donc li ñu cërale woon ci ay waxtu jot na. Mm. mais am na ci vidéo boo xam ne bëgg naa quand même ñu seetaan ko bii mooy. site Zarko bii voilà bii ci bii la di wax. voilà euh, la mhm. tey bu ñu mhm. koy méngale ak combat bi lan nga ñu ci mën a. non man mënu ma méngale xam nga man lan laay def. Mhm. laajte lan la règlement bu wax. man loolu la ci loolu laay.